nga def ko moment boo xamante ni ñëpp bëggoon nañ dem élection. bien sûr yow kese nga ne doo dem élection di forcer di forcer ay recours di forcer ay recours benn moment yi nii sax ñi ñi ñi bokk seen njaboot bi nii sax ñoom ñoo leen njëkk a jëppi donc je pense que PDS. et l'autre fait aussi le fait de ne pas avoir. Euh, un plan B. tout à fait pourquoi force Karim lay doon. te je pense ñi nekk candid ñi nekk PDS yëpp lan moo tax waruñu am ambition. je pense que ci farce dañuy dañu dugal seen bopp ci benn farce boo xamante ni ils ont été les les plus perdants parce que pouvoir perdre ci pouvoir bi dafa tenté laal laal laal làmb. ba affaire yi dëgër ñu reculé wu. alors que ñoom dañoo dem ba jusqu'au bout. Mhm. pouvoir bi nii moment bi mu bàyyee ñoom bàyyi ñu dañoo dem ba sës. Mhm. te xamoon nañ ne nii instant boobu ñoom mënuñ am dara. Mhm. donc moo tax. kaw PDS bi c'était un pari risqué. boo xamante ni ils doivent savoir que ñoom mënu ci woon am gain de cause s'ils étaient bien conseillés war nañ xam ne ni duñu woon am benn cause parce que procédure juridictionnelle bi. ah ku fexe ba reporter suñu élection kay waroon nga xalaat ni loo tante war na mën a nekk xam nga bi ñu ko reporté élection a dix heures de temps de l'ouverture de la campagne mais xam nga boo lool bu amee juge bi ne la lool du dal war nga mën a jël sa recul parce que yow tenté nga ko président tenté na ko par une loi tenté na ko par un acte administratif dara demul yow da war a reculer bu fekkente ni ñu ngi woon ci stratégie bu concluante stratégie boo xamante ni moom moo gën a favorable pour ñoom dañoo war a reculer bu ñu bu ñu gisee ni euh, le report de l'élection n'a